tribunal bi yëguñu benn yoon su ñu jëlee benn mais ci yoon dañ ko war a tànnal beneen bi am na sañ-sañu moom ne man diw ma gënal këlee ma gënal mais yegguñ ko te yegguñ koy def. donc su ñu a duggaat ci bi wala mais décision bi ñu jël mooy duggaat ci salle bi ñun ay avocat suñu ak ak yelleef yi gën a ndaw mu di droit de la défense bu suñu procès bu client pour ñu mën taxaw. teewal nu mu gën a rafet nu mu gën a ñoŋ ñu teel a ñëw mais ñun avocat li ñuy def ak ceeb boobu sax mais kon suñu waru gar dañoo génn bàyyi leen saal bon yëguñu amul amul soo bu ñuy génn amul mais bu xamuma parce moom moo fa nekk ca biir moom moom am na sañ-sañam peut-être pour wax ca loola. mais mais est-ce que démarche bi baax na si seen i client si boppam. waaw moom moom boppam moom mooy moom moom mooy décider su ko neexee mu bañ. Hmm. ak ku ne yaa moom sa bopp boo demee tribunal am nga sañ-sañu ne man kii du ma layool may ut suma layool ki may layool. ku la neexee aussi moom ñu bokk ko. jëlal waay balaa ñu ko dégg.